dañ fi ñëw tey am mbégte ñëw fii président yëbal ñu pour man ak ñi ma àndal maanaam honorable député Amadou Baba Sall bu Bakel honorable député am Yaya Diallo bu Bakel ñëw fii teewal parti bi pour ñu mun a saytu njaayum carte APR fii ci département de Rufisque ñu ngi gërëm nag responsable yëpp ministre Ismaïla Madior ministre Oumar Gueye Souleymane Ndoye ak mboolem maire yi ak responsable yi au conseil yi bu ma limee damay juum responsable Rufisque yëpp ñu ngi leen di gërëm ci seen teewaay parce que vraiment gis nañu tertu bi rafet na gis nañu mobilisation bi gis nañu engagement bi gëm nañu quota bi ñu leen jox bu à peu juróomi benn fukki junni carte war nañ ko mun a def fii ba 31 janvier 2023. ban stratégie ngeen tëral pour euh, bi mooy commune bu nekk am na li ñu la sas te gis nañ ni. maire lool rapidement donc stratégie bi c'est à la base dans les communes carte aussi pour ay leaders carte pour wane makissal Macky Sall jaay plus de 1 million de cartes que APR parti bu gëna fort fi Sénégal loolu kessé que ñu donc dama bëgg ñëpp ñu dimbalante. Euh, Mon message bi euh gis nañ ni ñu bëri nee nañu nitu Macky Sall lañu mais xiiro ak ngaayoo moo tax maire yi boo limee léegi dañu xaw a néew fii ci département Rufisque maire APR boo xoolee aussi maanaam euh, ci élection député yi passé dañoo ñàkk euh, député yu Rufisque loolu nag bëggatuñu mu am pour mu bañ a am nag gis nañ ne ñoom ñëpp xam nañ ne il faut mu nekk ci unité ak concorde gëm nañ ni responsable yi fi nekk nga xam ne ñoom ëpp expérience sax donc ñu melni Omar Gueye Souleymane Doy Ismaël Major ak mbolem ñu ñu ñu andal gëm nañ ne war nañ mëna def liggéey bobu pour que fi plus jamais Rufisque Alliance pour la République wala benn bokk yaakaar mu ñak fi élection investir nañ aussi wa ñom dal nee nañu pour 2024 benn candidat lañu am moy Macky Sall té léral nañ ko kon carte gën carte ñu wara joxé souple fi juroom fii juróom benn junni fukki carte lañu wara euh, jaay fi ci département de Rufisque loolu lañu leen sas 60000 carte lañ leen sas commune bu nek nak xamna limbi waxna bi leen ko